ci xew-xewu jamono tooxi yi nga xam ne am na ci réew mi te mu juddoo ci yorin gu salte yorin gu ñaaw yi nga xam ne moom la Macky Sall yore réew mi bis bu ne nag benn feeñ waaye li ci gën a yéeme mooy ñoom léegi weddeetuñu saa seen jombe génnee weddeetuñu waaye xam ngeen wax ci lan la mooy fan la mbir mi jóge kan moko feñal manam ngeen jéggal ma ci wax ji waye sacc buñu japp sacc buñu japp japp bu ne ni mom ma nga sacc waye da kan moma ma fofu la Macky Sall tollu ak nguuram sa su benn génné rek sen premier réflexe moy kan moy la top kan mo feñal mbir mi loolu bu ak nguur tollé fofu lañ ci mëna a moy réew mi ngi ci musiba té lu ci sénégalais xam rek li ci neub mo ci ëpp téeméeri junni yoon motax jëlé fi Macky du doon lu yomb ndax waji ngeen gis nit ku ragal la nit ku tiit té xam na li tax mu ragal xam na li tax mu tiit motax lu mu munti def lu mu mën def ba forcer troisième mandat euh, candidature rek dina ko def troisième mandat mom kenn du ko fi tudd ndax ñepp xam nañ ni sénégalais duñ ko ko mësa jox waaye tiit ak jaaxle ci yorin gu ñaaw gi mu yore réew mi ak tooxi doon yu rëy yi nga xam ne mool di ko def nañ ko moo tax mu yaakaar ni mën na force Sénégalais yi tey bi ma ciy waxtaan ak yéen mooy li jëm ci li ngeen dégg ci quarante cinq milliards yi ci li mu joxe ci jënd ay ngànnaay jox ko koo xam ne nee nañu ndax ay journaliste def liguey bi nenañu rew bi mu dekk sax ñang ko fay wër ngir ay tooxi doone 45 milliards ci jaxar démb pour la première fois ci assemblée nationale da lu am solo la pour la première fois en tout cas depuis ay ati at ndax mënu wax depuis indépendance ba légui ndax fekkew mako waye man nek na député pendant juroomi at lepp lu jëmon ci défense assemblée nationale dañ ko doon imposer ne vote sans débat kenn du ci wax ndax lo wax ñu ne le secret militaire loolu nak mo nara nek musiba fi ci Sénégal ndax nak ci secret militaire bobule, la ay nit di jaar ay politiciens de waaye ci secret militaire bobule, la politiciens yi di jaar pour di def ay affaire yo xam ne ay milliards milliards milliards milliards te kenn du ci wax ndax so waxee ñu ne secret militaire lélé sax ñu ñu yoni ay militaire bu ci homme politique da ci wax ñu yoni militaire ne dem leen dal ci ko gis ngeen fal yéré ay militaire yo xam ne politicien lañu général à la retraite bo xam ne politicien la ñepp xam nañ ko nan day dal sama kaw limay ñaan lepp lu jëm ci armée mooy nañu génn ci géewu politique bi géewu politique bi du mbirum armée séparation bi war a am dama bëgg mu leer mooy ñun ay civil lañu lépp lu jëm ci opération militaire amuñu sañ-sañu wax ci parce que du suñu xam-xam jànguñu ko ñun duñ ci wax ku ci wax yoon day dal sa kaw war nañ laa jàpp ne la rëpp ci kaso bi donc lépp jëm ci opération militaire nu ñuy xeexee fan la ñuy xeexee naka la ñuy ban position la ñuy jàpp lan la ñuy utiliser loolu civil du ci wax mbirum armée la waaye nag lépp lu jëm ci kopparu réew mi ak ni ñu koy utiliser ak secteur bu mu mun a doon homme politique yi ak député yi am nañu sañ-sañu saytu ko dama bëgg mu leer te loolu moo xew ci dëkk yépp nag demal États-Unis demal France demal feneen ak feneen yooyu ay débat la à l'Assemblée nationale ay débat la ci public bi da gis sax ay mouvement citoyen yu am doole yoo xam ne dañuy daan dañ naan d'accord ma pour ñu guerre fii gis ngeen guerre Vietnam Amérique dafa amoon ay mouvement citoyen yu am solo dañ naan d'accord ñu guerre Vietnam d'accord ñu guerre geer guerre Irak d'accord ñu d'accord ñu parce que loolu citoyen am na ci sañ-sañ waaye benn citoyen amul sañ-sañu wax ci guerre ga ni muy demee loolu ku ko def yoon war na dal sa kaw kon suñu mbokk takk der yi militaires yi ñoom waruñoo dugg ci politique waruñu cee wax comme ñun ñi waruñoo dugg ci lépp lu jëm ci opération militaire waaye nag alalu réew mi ma dellu baamu ko te toolu doone yëpp di am ci armes yi du militaire yi de ay homme politique ay ministre ay civil ñooy profité ci secret defence pour def ay njombe yoo xam ne ay milliards lañ ci soxla loolu est dañ ko war a seetaan ci réew mi parce que dërëmu sénégalais yi la jaaykatu caaf bi nekk fii day fay impôt journaliste bii day fay euh, ma maçon bi liggéey day fay impôt taximan bi day fay impôt yooyu yëpp ñu dajalé ko yobbu assemblée def ko ci budget ñu né légui dina am patch yo xamné kenn amul sañ-sañu saytu ko lu ci gaay lu lu neex gaay ñu def ko ci du lol moy démocratie té déméwul nonu ci benn réew démocratie ci aduna mo wax nak ni démb suñuy député assemblée nationale amna lu ñu def lo xamné ne la ndax pour la première fois ñu imposer débat ci passage au ministre des forces armées laaj ko ay laaj loolu mosul am assemblée dañ doon wax rek non c'est les armées vote sans débat bi ministre de l'environnement ñëw it imposé fa débat laaj ko ci 45 milliards yi te déposé nañu pour ñu ubbi commission d'enquête parlementaire ci 45 milliards yi noonee lañ ko laajee démb ay laaj moom ministre des forces armées bokk na suñ ko laaj mooy le rapport de la gendarmerie waaye tontuwu ci gaa ngi koy xaar plénière ndax xam ngeen commission lu tëju la presse du ñëw kenn du filmer waaye léegi plénière yi door defe le 14 la kon la wax dañ koo dugal ci li nga xam constitution jox nañu sañ-sañ bi kenn mënuñu ko tere mooy réew mi il faut koy saytu 45 milliards yooyu wax nañu suñuy député nañ ko topp ba mu mat xam xaalis bi ci ban condition lañ ko joxee ki ñu ko jox est-ce que amoon na référence yi ñu war ba ñu ko war a jox contrat bu toll noonu ak fan la dugal xaalis bi loolu nañ ko leeru ba mat sëkk waaye am na beneen contrat boo xam ne nee nañu journal bi ñuy wax Africa Intelligence ak yeneen journaux te presse nationale bi lu bëri yëkkati na ko ci waat nee nañu Euh, ñi nga xam ne ñoom lañu ñu tuddee benn fami bu ñuy wax famille Pérez nga xam ne ay israélien lañu israélien doom ji tudd Idan Pérez baay ji tudd euh, suma ma fàttewul bi dina ñëwaat waaye daal ab famille la Gabi Pérez famille boobu nee nañu am nañu benn contrat ak état Sénégal boo xam ne millions d'euros lañ ci xamagum 300 millions d'euros loolu soo koy xayma ci CFA jege na 196 milliards de francs CFA kooku ko war la de boo xam ne moom Macky Sall dafa dem lebi waaye comme nee na Sénégal dañoo am problème trésorerie xaalis ñooñu ñoo ko garantir ñoo ko jox caution garantie pour que ñu mun ko lebal xaalis bu ni toll waaye xaalis ba lebu ko pour tabax ay hôpitaux de te sénégalais yaa ngi bëgg a dee lebu ko pour tabax ay ay ay ay école lebu ko pour régler problème mu ndox mi wala problème mu mbëndu Sénégal lebu ko pour defar ay tali yu yi mun a daw lebu ko pour defar mbayu Sénégal ñi nga xam ne tey suuxe suuxe na ba jiw ju baax sax suñu mbaykat yi mun mënuñu mënatuñu ko am engrais mënuñu koo am lebu ko pour defar càmm Sénégal bi lebu ko pour jàppale politique industrielle pour que ñu mun a teg réew mi ci yoonu développement lebu ko pour politique boo xam ne dina yombal ndaw ñi ñu am liggéey waaye xam ngeen ci lan la ko leb xaalis boobu yépp mi ngi ko leb pour dem jënd ay gànnaay yu muy dalee ci askanu senegal xaalis mi ngi ko lekk pour dem jëndi ay gànnaay ndax li ci ëpp boo wax bu ngeen xoolee léegi gendarmerie bu dara xewee ak police li ñuy génne jamono Ablaye Wade dañ doon wax dragon ñu naan benn dragon la wala ñaar léegi boo demee ba fëngali mi sax di nga fa fekk juróom wala fukki dragon yu ñu fa gaare xaalis bu ñu lekk pour jënd matériel boo xam ne. ci ci waaj waajtaayu ñetteelu candidature nu ñuy def ba dal ci kaw askanu Sénégal damm askanu Sénégal rey askanu Sénégal gaañ askanu Sénégal ci loolu la lebee ci turu Sénégal 196 milliards yoo xam ne ñun ak suñuy setaat dañ koy fay lu doy waar te kenn xamul lan moo ne ci suuf dëgg dëgg dëgg moo tax ñu ne suñu waa groupe parlementaire. dañu waxoon sénégalais yi ni jox leen ñu majorité assemblée nationale mbir mi soppiku gis nga démb bi ñu ñëwee assemblée suñuy député dañoo njëkk a félicité armée nationale félicité jàmbaar yi wax leen ni ñu kontaanee ci seen taxawaay te voté budget bi nag budget armée waaye teewul li nga xam ne dañ ko war a leeral nag te li ci ëpp nag ay civil ñooy làqu ci secret defence pour def seen i tooki doone waxtaane nañ ko démb loolu mooy position républicaine biñ naan biñ ñaan sénégalais yi jox leen ñu majorité du woon pour ñëw gàllankoor réew mi nu muy doxee waaye tubaab dafa ne boo jëlee nguur yépp teg ko ci loxo benn nit dong boo moytul salfaañe bi ak jalgati bi dina bëri waaye boo jëlee lenn ci nguur teg ko ci loxo kenn nga jël leneen ci nguur teg ko ci bu su rawatina nag parce que bu dee da nga jël nguur yëpp jox nit majorité mu jiite nga jox ko majorité assemblée te muy nguur bu baax boobu dina dox bu baax waaye su dee da ko jox fukki at gis ni kii du nguur bu baax kooku da doo ko joxati majorité da ngay fexe ba assemblée nationale nga teg ko ci yeneen yoxo ñu mun a saytu réew mi donte nag tey ñun amuñu majorité moom amu ko. looloo neex dans assemblée nationale 82 Nous, nous avons officiellement 80 ak ñaar ñoo non inscrit ak benn ci non inscrit la donc non inscrit ak opposition 83 la 82. lañ def ak barki ko ñun assemblée neex lañ doon def mais fi mu ne nii nous avons ni mu naan ci assemblée bi parce que amatuñu majorité. moo tax taxawaayu suñu député yi am solo lii nag dañ leen dañ ko leeral ba mu leer nañ nañ ci def ay commission réclamer nag ñu jox leen contrat yépp ñu teg ci seen bët ba xam li ne ci suuf waaye fi ma bëgg a fële mooy li li tax ma dooree foofu rek mooy fi ma bëgg a dafa am rapport ak ñooña mooy gis nga sénégalais bu ñu moytu léegi dootuñu am patrimoine immobilier état du Sénégal rawatina centre ville parce que Macky Sall ak ñi mu àndal ñi ngi dàggati li fi li fi nguur yi fi jaaroon yépp bàyyi woon ndax xam ngeen Sénégal bi muy am indépendance dafa am indépendance ak li ñuy wax patrimoine immobilier mooy ci wàllu suuf ak bâtiment dafa bëri loo xam ne tubaab bi bi muy dem da koo delloo état du Sénégal mooy loo xam ne ñun ñëpp a ko moom muy suuf su bëree bëree bëree bëri te li ci ëpp ay bâtiment ñoo ci nekk fi toll nii suuf soosu nag Macky Sall ak ñi mu àndal ñi ngi dagg di joxe rek fan lañ ko jaare parce que loi dafa leer loi dafa ne suuf su nguur moom état du Sénégal explication yi dama bëgg mu leer suuf soo xam ne état du Sénégal moo ko moom rawatina bu dee dafa am ay bâtiment yuñ ci tabax kenn amul sañ-sañu jaay ko lu dul assemblée nationale yóbbu nga ko ba assemblée nationale voté loi autorisé la ne demal jaay waaye ñoom fan lañ koy jaare dañu teg seen benn deal seen benn technique boo xam ne lu doy waar la li ñu njëkk a def mooy. xam ngeen dafa am lu ñuy wax agence de gestion du patrimoine bâti de l'État AGPBE agence boobu am am na décret bu ko créé woon décret bi ça daté de 2013 waaye 2018 bi moom président Macky Sall dafa changé décret boobu ne léegi agence boobu am na sañ-sañu di joxe ay boo c'est-à-dire di signer li ñuy bàyyi ci terrain yi nga xam ne askanu Sénégal moo ko moom

ñu ne léegi foofu lañ koy jaare pour di joxe immeuble yi loolu mooy acte premier bi nga xam ne def nañ ko 2018 ñu jël benn décret décret numéro 2018 2018 2129 du 6 décembre 2018 moom la Macky Sall njëkk a jël ndax ñoom suñuy def dañ koy planifier bi nous paree loolu nag la ñu commencé di joxe ay baux yéen ñëpp ko ngeen yéen journalistes yi juñjon na ko fi sama ben conférence de presse mané bindon na bi may nek assemblée nationale le 16 octobre 2020 bindon na une question écrite adressée ko gouvernement bi ne leen am na ay immeuble yo xam ne jël ngeen ko jox ko ay privé tak anam yi ngeen ko joxee jaarul yoon

ñu jëlaat immeuble bi ñuy wax Sénégal Hôtes Invest bi nga xam ne Rue Carnot la nekk benn immeuble bu nekk Rue Carnot laa bëgg wax ñu jox ko benn société bu tudd Sénégal Hôtes Invest ñu jëlaat benn immeuble bu nekk Rue Cléber jox ko société bi ñuy tuddee Sénégal Global Solution ñu jëlaat benn immeuble bu nekk Rue achimoutal ñu jox ko benn société bu tudd Fleur Sassu ba ci fi nekkoon direction de l'élevage ñu joxe ko te lii lépp nag assemblée nationale Donc, nous naa une ni loi dafa ne munoo jël immeuble boo xam ne état moo ko moom dem di ko joxe te jaarul assemblée nationale bi loolu amee nag bindoon naa leen question écrite ñu tontu tontu y xam ne daanaka tontuwuñu ci li ma wax ni moo tax ma ne y comme le bay du tey dans assemblée nationale. lépp dinañ ko jébbal suñuy député ñu ubbiwaat dossier yi parce que alalu réew mi la te dañu nangu ñu sànke ko ni ñu ko bëgg a sànke am na ci immeuble yooyu yoo xam ne tey ña ñu ko jox rasé nañ ko ba ñu ngi fay tabax ay im ay ay gratte-ciel ay immeuble yu kawe kawe kawe te kenn xamul seen anam la waaye li tax ma wax sànq commencé ko ñi ñu joxoon contrat bi les cent quatre vingt seize milliards pour ñu jënd ay armes pour Sénégal di tax ma commencé ko foofu dafa fekk ñooñu dañu am benn société bu tudd AD immobilier AD immobilier AD immobilier boobu Macky Sall daf leen signer benn décret décret bi mi ngi nii daf leen signer benn décret dadi jël juróom benn titre foncier yoo xam au commandement de la gendarmerie nationale fi mu nekkoon immeuble boobu ci la bokk mu jël juróomi juróom benn titre foncier yoo xam ne boo ko dajalee def na 4722 mètres carrés bu yóbbu nga ne 5000 mètres carrés fële ci centre ville mu signal leen daal len koy jox bail emphytéotique pour 50 ans 50 ans ñu génnee au commandement de la gendarmerie fofu mu nekkon dem wër ko almadi daal jël lolu nga xamné bâtiment yi fa nekk ëpp na lool de parce que nee ma sax archive bi bâtiment archive fofu la ne juróom benn titre foncier yi bu nekk dafa correspondre ak benn bâtiment ñu jël ko jox ko société bu ñu naan AD immobilier nga xam ne Idan Perez mooy gérant daanaka moo moom ñu ne defal nañ ko bail emphytéotique pour cinquante ans lan mooy anam yi ak li tax ñu jox ko mooy tey ma njëkk a wax ni immeuble boobu soo génnee bâtiment yi soo jëloon rek suuf si assiette bi boo ko doon xayma tey lu mu tuuti tuuti valeur u 7 la parce que yeneen xam ngeen ni centre ville tey mètre carré bi ci valeur marché bi ñu ngi koy jaay diggante 1 million 500 ak 2 millions def leen calcul bi boo jëlee sax 1 million 500 nga xam ne moo gën a néew valeur u 7 milliards la jox société boobu te loolu xaymaa lu ñu yi fa nekk waaye dañu bind mooy bâtiment yépp da ko war a raser pour tabax fa benn bâtiment commercial boo xam ne moom moo ko moom nga jox ko ko ne jox naa la ko bàyyi emphytéotique pour cinquante ans waaye weer euh, at bu nekk cinq millions ngay fay comme bàyyi cinq millions so koy xam moy 000 francs par mois lañ ko joxé lool la ko francs par mois lañ ko un terrain bu toll immeuble bo xamné immeuble commercial la su mo xam ay bureau la def wala mais mom immeuble du Sénégal immeuble musiba weesuwul loolu boo leen laajee suba dinañ leen ne déedéet bàyyi lañ ko fa jox suuf si état du Sénégal moo ko moom moom bâtiment bi la moom waaye foog ngeen di nit dina dépenser ay milliards et tabax benn bâtiment ci suuf ñu ne ko bâtiment bi yaa ko moom ba pare suuf si du ci topp moo tax seen yëfu tàppale ñuy def boo demee ci contrat bi ñu signé dañu ne moom bu paree tabax rek saa su paree tabax rek am na sañ-sañu dugal li ñuy wax cession définitive mooy am na sañ-sañu bind bi impôt domaine ne léegi dama bëgg dama bëgg ngeen jaay ma suuf si te comme tabax na fa valeur ay milliards milliards waaye impôt domaine dañ koy defal cession définitive bi moo wax sénégalais gis nga cession définitive bu ñu ko doon def xam ngeen barème bi ñaata la woon ñaata lañ koy jaayee mètre carré bu ne. su beure ba beuri 60000 francs le mètre carré lañ koy jaay parce que barème bi dafa né so démé centre ville boudé ci corniche bi wala boru place de l'indépendance 60000 la boudé ci kaw tal yu magi 40000 la waye boudé ci bir 30000 le mètre carré bo jëlé 60000 sax nga xamné mo gëna kawé xam ngeen lan la koy diggé 280 millions ci lo xamné tay ëpp na 7 milliards lii nag lu doy war la te defuñu ko ci benn bâtiment defuñu ko ci ñaar defuñu ko ci ñett waaye lu gën a yéeme ñu bugg ci attirer attention sénégalais yi mooy Macky Sall mi ngi dugal léegi biir Sénégal ay réseau international yoo xam ne réseau yu garaaw la yu dangereux ay trafiquants d'armes ay jaaykatu armes ay yu demee noonu yooyu la commencé loolu la dugal léegi ci Sénégal te ñépp xam nañ ni ñooñu fu ñu xas ba toog seen intérêt nekk fa ñoom ay milliards yu ñuy sàmm foofu képp ku jóg ne lii dëppoo ak intérêt Sénégal dama ko bëgg a changer ñu pexeel la yàgg nañ koo gis ci àdduna guléet ci Sénégal nag ci Macky Sall ñu indi ñu xeetu nit yooyu fii biir Sénégal dafay baax dafay jaadu sénégalais yi xam ko te xam nag Macky Sall li ko mbir mi jaral tey pour continuer toog senegal ndax pétrole bi ñu dégg ndax gaz bi ñu dégg ndax suuf si ndax géej gi ak yeneen ak yeneen ak yeneen moo tax fulla gu rëy rawatina yéen ndawu Sénégal yi bis bu ne ma wax leen ko gis nga bu ñu amul fulla suñu bopp lii nga xam ne ku na te ñépp xam ne lii mooy avenir du Sénégal tegu ci patriotisme ak bëgg sa réew ak ñàkk complexe ak jële fi nger définitivement ak fexe ba alalu réew mi ñu tee ci biir réew mi mu jëriñ waa réew mi Macky Sall ak ñi mu àndal jaral na leen lu ne pour tey ñu faagaagal lii nag moo ci waxee nii ba xam leen ni yéet nañu lépp nag suñuy député parce que le combat se fera à l'Assemblée nationale te lii mënuñu ko bàyyi mu demee noonu. parce que dagg nañu dëkk bi yëpp jox ko ay nit ci alalu réew mi nga xam ne ay centaine de milliards boo ko dajewoon ñu koy jox ay nit ci njëg yu ñàkk solo yu amul benn fulla bokk na ci li nga xam ne moom la laaj waa ji mooy mu tabaxal leen benn benn bâtiment de quatre étages biir caserne Samba Diéry Diallo gis nga suñu commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne député yi nañ ko laaj dina wone waa yi lan lay am ci mbir mi ci ay milliards ak senegal lan la ci am te di ngeen gis ni ndekete Senegal amu ci tous boko comparer ak waji niñ ko jox ci ay media li de buñ ko defalon homme d'affaires national yeen ñi sax journaliste yi defalon li fa ngay joge nek milliard milliardaire sa dañuy dem jëlé ay nit bitim rew jox leen suñu mbir ñu am ci ay milliard ñoo xam ndax dañu am luñu leen di jox leen rew mi nak continuer ci ndol ak ci ay jafe-jafe mbokk yi lii moo war a nekk suñuy débat fii ci réew mi diversion yi ñuy def nii ay waxu Masamba ma demba waxu picc yoo xam ne dama bëgg askan wi egg benn niveau de maturité boo xam ne lii waral tey jafe-jafe mu xam ko ba kenn dootu ko divertir di ko dugal ci ay waxu caaxaan parce que nag ñoom dafa am loo xam ne ay nañ ci te askan wi il faut mu yow fi définitivement saa suñ ko jàppee ba jot ko rek. mu créé benn fait divers diw wax na lii diw diw dem na fii diw jàpp nañ ko fii ñu bàyyi nag li nga xam ne mooy suñu farata nekk ci ay débat yoo xam ne amaluñu njëriñ moo tax bu kenn askan bi bu mu nangu moo ko ko ku ciy seetaan télé sax wala rajo ba ñu dugal la ci débat yoo xam ne amalul réew mi njëriñ changer télé nga dem seetaan fu ñuy waxee jafe-jafe réewum parce que foofu lañ ci toll est-ce que askan wi xam nañ ni. ñun dañoo bokk ci réew yi gën a ndóol ci àdduna bi ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol ndóol ci àdduna bi Sénégal ci la bokk moo ne réew yi nga xam ne tey ñoom ñoo ëpp alal ci ci ci àdduna bi boo demee seeni dëkk seen waxtaan yépp seeni télévision seeni rajo mooy naka la ñuy def ba am énergie bu doy naka la ñuy def ba pétrole ñu am pétrole bu doy ak njëg bu yomb naka la ñuy def ba waa réew moo am liggéey naka la ñuy def ba paj mi baax naka la ñuy def ba mbay mi baax mais waxu ñàkk fayda yi ñu nekkee fii doo leen ko gis mukk ñu débat ci loolu réew nag bu la gën a xam farataam moo la gën a moo la gën a développé ay réew ku la gën a xam farataam moo la gën a développé may insister bokk ci ndaw ñi parce que dañ leen di divertir ci réseaux sociaux yi ngeen nekk ci wax yu amul benn solo nit bu ñàkk gën a ñàkk solo bu génnee wax ngeen topp ci commentaire nangam nangam lii moo war a nekk seen farata lii moo war a tax ngeen jóg taxaw teru ne duñu nangu ku jaay suñu réew wala ku ku yàq suñu avenir